maa moom bii wax rabbana wa laka alhamdu hadisu abu hurayrata radiallahu anhu mu ne isaa qaama isaa qaala al imaamu sami allahu liman xamida fa qulu rabbana wa laka alhamdu rawahu albuxaari wa muslim mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na bu imaam ne sami allahu liman xamida yéen na ngeen wax rabbana wa laka alhamdu bu ñëw ci wax amin ginnaaw fatiha mi ngi ciy tegtaloo xadiisu alqama ibnu wail an abihi mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam julli na wala moom baayam julli na ànd ak yonent bi ba ñu àggee ci gayril maxdubi alayhim wala dolliin daf ne amin waaye mu suufeel kàddoom hadis boobu addaar xutni ak xaakim ak tabaraani necc nañ ko naka noonu mu ne bu imaam waxee gayril maxdubi alayhim boobu hadisu abu hurayrata la na ngeen wax amin ndax ku sa amin dajeeg aminu malaaka ñu baal la say bakkaar la jiitu woon ngay julli boo ñëwee ci tasbiix yi sàbbaal yi ngay sàbbaal ci rukkoo ak sujjóot yonent bi alayhi salaatu salaam ci hadisu ibnu mas'ud abu daawud moo ko nattali ak tirmisi isaa raka'a ahadukum fa qaala fi rukuu'ihi subhaana rabbil azim ñetti yoon faqad tamma rukuuhu kooku rukoo mat na lii nag mooy li ci gën a tuuti maanaam ku rukoo ku nekk lu tuuti tuuti na nga wax ñetti yoon subhaana rabbiyal azim su ko ëppee nag baax na tabarkalla yonent bi it ci hadisu ibnu abbas boo xam ne muslim ak abu daawud ak nasaa'i nekk la nañ ko mu ne ee yéen nit ñi dara desutul ci mubasharaat ci yonent lu dul géwante gu baax géwante gu neex goo xam ne jullit da koy gis wala ñu wan ko ko mu ne xanaa xamu leen ni man day tere nañ ma ma jàng alquran ci bu mu rukooxee tere nañ ma ma jàng alquran ci bu mu sujoodee kon nag su ngeen rukooxatee na ngeen fa màggal yàlla subhaana rabbil azim su ngeen sujoodatee ngeen góorgóor lu ñaan fa man naa am ñu nangul leen naka noonu boo jëlee jàng mu gudd ci suba Omar ibnu Xataab radiallahu anhu dafa mas a bind lettre Abu Muusa al Ashari fekk ma ngi ko defoon gouverneur ca barab sàngam mu ne ko booy julli suba na nga guddal njàng ma bu dee ci tisbaar na nga ko xaw a yemale bu dee ci timis na nga gàttal loolu la ko waxoon moom Umar ibn Xattaab radiyallahu anhu naka noonu toogin wu ñu xam beeg yooyu ay ahadis yu bari daf cee ñëw bokk na ca hadisu Abu Humayd Saaidi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam bu masaana rukoo day yem du sëgal bopp bi lool du ko siggi lool day teg ñaari loxo yi ci bëti wóomam ba mel ni ku ci téye ni nikk ci bëti wóom yi téye ko bu dëgër alayhi salaatu wasalaam naka noonu su masaana sujjóot day jàppandal bakkan bi ci suuf ba bakkan bi laal ko mu bës jëbi ba jëbi laal suuf mu daal di soreel ñaari loxo yi nag mbagg yi wala boog ñaari wet yi maanaam du tàmpe loxo yi ci wet yi te it day fab ñaari tenq ya mu dem ba tolloog fa ñaari mbagg ya wala boog fa ñaari nopp ya waaye du fab ñaari loxoom mu féete ko ginnaaw naka noonu su ma saana toog ci julli day toog ci tànkub ndey càmmooñam samp tànkub ndey jooram sallallahu alayhi wa sallam ci xunóot bala ngaa rukkoo ma ne jaadu na it ginnaaw rukkoo xadiisu Aasim radiallahu anhu mu ne sa'altu anasan an alxunuuti dama laajoon anas xunuut ndax yonent bi daf daan xunuut door a rukkoo am daf daan rukkoo door a xunóot mu ne ko daf daan ruk daf daan xunóot door a rukkoo nee na mu ne ko man de am na ku mu wax ci saxaaba yi ne ma moom daf daan rukkoo door a xunóot anas ne ko ah kooku lim wax du noonu yonent bi boo gisee mu daan def loolu benn weer rek la ko def maanaam rukkoo ba noppi door a xunóot anas mu ne benn weer képp la ko yonent bi def sallallahu alayhi wa sallam wax jii nag demal ca albuxaari ak muslim foofa la nekk yonent bi daana xunóot balaa rukkoo daana xunóot bu rukkooxee ba noppi waaye bu rukkooxee ba noppi mu ne ko loolu benn weer rek la ko def moo tax hadiis abu hurayra mu ne xanata baada rukkooxi xunóot na ba tey ginnaaw rukkoo mu di weer woowu ko anas wax muslim laaj nañ ko it ci xunóot ci jullit suba qabla rukooy aw baadahu ñu laaj ko abu xumayd mu jële ci xanas mu ne ñaar yépp la def fa qaala kilahuma kunna nafalu qabla wa baad mu ne ñaar yépp def nañ ko xunóot nañ door a rukoo rukoo nañ door a xunóot naka noonu ñaan gi ñuy ñaan ci boo dee taaya allahuma axfir lii ma qaddamtu wa ma axartu wa ma asrartu wa ma aclantu wa ma asraftu wa ma anta aclam bihi anta almuqaddim ba ñaan googu jeex ni ngeen ko xame ak itam muslu ci ñeent yooyu mu doon muslu min azabi jahannam ak yu demee ni ki yooyu nee na lis salaati julli am na nuurun azim leer gu rëy waaw borom téere bi sidi abdurahman al axdari nee na li salaati julli am na nuurun azimun leer gu rëy barakallahu xam ngeen ne julli bi ko suñu borom tabaraka wa taala di jox ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa woo njiital umma bi jox ko fas wu gën a gaaw ci fas yi di boole dawat naaw mu fekk ko ci guddi muy tàmbalee nelaw ñëbbu ko arash summa dana fata dalla fa kaana qaaba qawsayni aw adna ba mu fa demee la fa jël julli bu doon dangay misaal danga naan ñu laxasal ko ko ci këyit laxasaat ko ci weneen laxasaat ko ci weneen ñuy def or moo tax li salaati nuurun azim julli am na leer gu rëy leer gu rëy googoo tax péncu mag ñi péncu moo ca dem la fa gën a rëy jullee ko moom boo fi jóge woon dugg réew mi mag mu ne nga dem ci péncam la mag na moom la fa suñu borom mooma ko ëpp tabarakallahu moo tax góor ga woon ca tiwaawan radiallahu anhu li mu ñëwee Dakar fii mu am tey zawiyeem bi am nañu bu ñu ko amoon bu ñu ko yëkkatee état tey la ciy génn ci xaalis boobaak léegi kenn xamul nu mu toll waaye wóor na ko ne moom nuur salaat yi day jollee ca loolam ñu di ci am mu ëpp fuuf la war a juddoo ca bu ca xaalis doon am ndax soo fi jóge fi nga koy bàyyi te yàlla léeg-léeg nga dénk dëkk ko say loxo ne ko may ma mu xam ne lim lay may boo fi jógee dem fi nga koy bàyyi mu gàntu la may la leneen lool booy dem yóbbu ko li ngay dem yóbbu ko ci may moo gën la nga fay bàyyi dem su fi jóge woon dem tey pénc mu ñuy wax Jurbel daa nga jàll ba Tuuba da nga fa fekk ci digg pénc yooyee lay mandargaal lay lissalaati nuurun azim julli am na leer gu rëy loo tax tabarakallahu nag ñu faat ko jar lu ne jar loo dalan ko faat julli seen xel mu su ko xalaat lu tax ndaxte lissalaati nuurun azim xam nga leer ne bi courant coupé ba nga ne ci lëndëm gi bu leer gi ñëwaatee ci ngay wax ci ngay xam neexaayu leer te am na génn kër goo xam ne ñun ku fi jóge jëm fële ca alaaxira kër googa fa lañ lay dugal te ñun ñëpp xam nañ ne kër gi daal lëndëm ndax dañ koy gas lu mu xóot moom kër googu yow muñ fay dugal ñu takk say bët laxas la aw sagar wu weex dugal la ci biir defaat suuf ci sa kaw lëndamaay googu soo fa amut ak leer tabarkala dina doy waar ndax man gisaguma ku ñu brancheel ay fil ak i contact mu tëdd ci biir ñu door ko ak denc man gisaguma ko waaw dugal la ci sa biir xabru daf ca làmp yeeg ñun seen yu installé ba mu jekk ne contact denc la ci biir man gisaguma loolu doo bu coupure amee doo doo doo nga mën a jot sawara loolu gisaguma ko moom daal damay gis rek lu waay tedd tedd lu waay màgg màgg boo dul suñu borom tabaaraka wa taala boo fa jógee rek nga gis yërmande nit ñi daal di puus tuuti ñu wàqi mbax ba mu xóot def la ci biir kon daal li salaati julli am na nuurun azim leer gu rëy li salaati julli am na nuurun azimun leer gu rëy tabarkàlla maa ngi leen wax li salaati ñeel na julli ñeel na julli waaye ñeel na mooy am na julli am na nuurun azim leer gu rëy tashriqu bihi dana ca leere ca leer googa xuluubul musallina xoli jullikat yi leer gu rëy googu ci la xoli jullikat yi di leere tusriqu bihi qulubul musallina moo tax boo gisee koo xam ne kii leer ga leer na ca xolam bu ñëwee ci jàkka di julli bu ñu jaawalee ay dallam du yóbbu dalli jàmbur lu tax ndax leer ga leer na ci xolam waaye su leer gi leerul ci xolam buñ jaaralee dàllam dàll yu njëkk a jot sol ko te naan kii de moom a gënle wala ñoo xaw a yemle te xamuloo ba xam ki nga sol say dàll mu yóbbu soo son déet ki nga sol ay dàllam la wóor mooy ku yóbbu say dàll ku ne war ngaa mën a ñibbee taan ku neen te xam ne duñu yóbbu say dàll li ma bëgg wax rek mooy ki xolam leer ci julli bu ñëwee ci jàkka ji du fa jël yëfi jàmbur duñu seet na kuy dàllam réer ñu gis ne am na ku gisu ci dàllam tusriqu bihi qulubul musallin aji jigéen ju doon julli ba leeraayu julli googu feeñ ci xolam duutoo ko gis mu def boppam neen ñëweetu ko ndax julli stage la buy jàngal jigéen musóoru ak sol lu jot ak sol lu yaatoog sol lu xat moom julli stage la ci pour defar ko jigéen boo xëyee suba mu def loola ko lu war a mat ñaari minute ñett tisbaar ñu wooxaat la def loola ko ñeenti rakka nga muur sa yaram bi yépp takkusaan jot noonu timis jot noonu gee jot noonu waaye danga gis koo xam ne du mokkal mukk ndax su ne allahu akbar muur aw yaramam bu sëlmalee balaa def baaxeen saaliyaat dindi muuraay ba sànni dangay gis koo ci xam ne day sànni ngi góor góorlu fa muy dem di liggéey sax dana yóbbaale ak sa jaada teg fa yóbbaale siir teg fa buy bëgg a julli woddu muuru julli dindi waddaay la dindi muuru ba sànni li muy tegtal mooy leer gi ñëwagut ndax tusriqu bihi qulubul musallina bu leer gi ñëwee dootoo ñemee def yaramu neen waaw moom la yonent bi alayhi salaatu salaam di junj ca xadis ba nee na benn waaye dina julli juróom benn fukki at te nangu lañ ko genn julli dong inna rajula la yusalli sittiina sana wala tuqbalu lahu salaatun waxida juróom benn fukki at yoo xam ne baax la woo genn tusriku bihi qulubul musallina te lay leeree xool ñi nga xam ne dañuy julli yow mi nga xam ne boo kilifa nga nekk sa kër def bu ci amee benn leer bu leer ci yow da nga tiit ci sa borom ba nga xam ne sa biir njaboot doo ci gisati ku ñemee def lu yàlla yi tere ci biir kër gi déedéet lu tax ndax lu julli jëriñ taal na ko ci sa xol tufiiqu bihi xuluubul musallin gis nga boo jëloon tey benn barab boo xam ne bii courant dafay jóge benn prise wala benn relance wala yu demee ni ki yooyu ñi ciy branché pour am courant nga gis ku ñëw moom jëlil prisam roof ca ñaari bën bën ya xanaa mu ñëw teg ko ca kaw tabarkàlla sawara du mun a jëlee ca fam ko bëgg a jële indi ko ca fam ko jëme moom daal su bëggee sawara jóge fa day fab prise boobu roof ko ci bii ba ñaari sawa ba ñaari wen ñi laalante sawara mën a jóge foofu topp filam ba ñëw fam ko soxlaa noonu it nag nit ñuy kàbbar naan yàlla allahu akbar kenn ku ne da nga bëgg branché sa fiil ci suñu borom tabaraka wa taala allahu akbar allahu akbar assalaamu aleykum rek tabarakallah léeg-léeg gis ku jullee jullee julli ba sonn must musta taqale benn yoon ba tax genn waaye nga nii su masaan di julli loo koy def du ko yëg lu tax ndax yëg na ne jokkaloo gi am na silatul abdi bi rabbihi moo tax mas naa gaañu gaañ gaañ bu métti ñu ko cay faj dañu koo bàyyi ba mu ne allahu akbar ñu daal di tàmbali di faj di tàngal yaram wa ak yooyu nga xam ne moom lañ ca jublu woon kon xulubul musallina tushriqu bi nuuri salaati xolub ñi nga xam ne ñooy julli ñoo ngay leerloo ca leerug julli su leer gi xasee am rek nit ñi dañ ko daal di xàmmee waaw bu leer gi xasee am ci nit ki ku la gis rek xam ne kii am na nooru salaati ci ay jëfinam dana am yu bari yu muy moytu ci yi ñuy tere bu dee soxna dana gàttub tànk du muur aw yaramam dana wax ndànk du xaqataay ca kaw du jëlee fi jàmbur du bokk ci teg boo xam ne bii da cay bokk ba noppi dootu tegalaat nit ñi du bokk ci teg ñu teggal ko mu dem yooyu yëpp du ca mën a bokk ndax lan ndax li julli jëriñ daat na koy am moom tushriqu bihi qulubul musallina wala yanaaluhu du àgg ca leer ga nag illa alxaashicuuna lu dul ñu ragal illa alxaashicuuna lu dul ñuy toroxlu ci seeni cër ak seen xol ci julli alxaashicuuna moo ñi nga xam ne bu ñëwee ci julli bu ñu ne allahu akbar daal di yëg na léegi ki leen bind di leen dundal war leen fee jële ñu dugal leen ci xabru kooku la ñuy fekki kooku ñuy fekki nag moo leen sant li ñuy def moo tax xaashicuuna yi bu ñu ne allahu akbar tàggoog seen sago ci adduna si ba baa ñuy wax asalaamu aleykum moo tax tukki ab ab wam ba julli ab tukki la boo ne allahu akbar dem na boo dellu fee ne asalaamaaleykum mbokk yi na ngeen def ñibbi siwaat nga assalaatu israun wa miraaj wa safarun ila zil jalali wal ikram moo tax xaashicuuna yi ñoom rekk ñooy jàmbaar ñoom rekk ñooy jàmbaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam seen na jenn waay muy julli léeg-léeg mu ñoddi sikkim ba léeg-léeg mu walbati kaala ga léeg-léeg mu defaraat léeg-léeg mu sekkiritu yonte ne kee day amul xusoo saa bay ne ko ndax lan mu ne su amoon xusoo cër ya xusoo moo tax la wala yanaaluhu du àgg ca leeraayu julli xol ba di ca leer illa al xaashiuun ndekete kon ñuy julli ñëpp duñu ay xaashiuuna nekkati ñuy julli ñëpp laa yanaaluuna nuura salaati ñuy julli ñëpp duñu am leeru julli ñuy julli ñëpp duñu am xaashiuuna cëddëddëdd ndax bu ñuy julli ñëpp amul xaashiuuna fi ne li naqari yàlla kon ci nit ñi jeex kon dootuñu géñante ay waxoo dëgg ak mën naa wax dëgg dootuñu géñante ay yaa jël lii jëluma ko dootoo dégg xuloo dootoo dégg jàppal fii bàyyil waaye ñàkk xusoo boobu moo tax nit ki su salmalee rek dellu siwaat ca yam nekkoon barkala léeg-léeg nga dem ci jataay ñu tiim mel ni mbir ne ca di fo ba mu yàgg ne waxtu joojut ñu ne kay ñu bàyyi ko fa dem kàbbar bu ñu salmalee nga gis ko ci baax yaatu saaliyaat mu ngi koy fekk ca fa moom mu tàmbaliwaat ñooñu amuñu xusoo wala yanaaluhu illa al xaashiuun kon nag borom téere bi mu lay yedd mu ne fa isaa atayta ila salaati soo ñëwatee ci julli fa isaa atayta saa boo ñëwatee ila salaati ci julli jàpp nga waxtu wi jot na nga agsi ci jàkk ji wala sax sa kër kabar nga nooy def mu ne fa sarrix qalbaka na nga fëgg sa xol na nga fëgg sa xol ba mu set wecc mene duniyaa ci àdduna wa ma fiiha ak mboolem li nekk ci àdduna da ngay fëgg sa xol ba mu set wecc ci àdduna wa ma fiiha ak li ci àdduna bul julli ba noppi kàbbar sa xel di nekk ci mille franc yi la amel bul kàbbar sa xel di nekk ci rendez-vous boo amoon bul kàbbar sa xel di nekk sa bàjjen ma nekk Cees bul kàbbar sa xol sa xol di nekk ci soxna si déedéet fa farri qalbaka min addunia wa ma fiha moo tax télé bi na fay ndax sa xol nga mën cee fëgg adduna rajo bi it noonu ca jamonoy mbëri ya ndeysaan waa ji taal rajoom ne du ko fay ndax bëggul combat bi raw ko te bëgg naa julli takkusaan waaye julli ga daa yàqu ndax ba morom ma daane ba ñu ne daan na ma nga ci biir julli ga daan ne diw daan na loola day yàq julli moo tax bu jotee fayal rajo fayal télé lépp lu lay soxlaal na nga ko na nga ko dindi ci sa xol alayhi salaatu wasalaam moom doon na julli rajo gi rek dessin yi ci nekk mu ne aïchatu mu ne ko labbayka mu ne ko dindil yi ci sa rajo bi ndax yàq na sama julli gi naka ñun ñi nga xam ne ku kàbbar li la wër ci néeg bi ci ay mënus kenn xamul nu mu toll mënusi sikóor yeeg kaña yeeg jaxa yeeg ñoom seen yooyu waxuma loolu sax waaye dañu gis kuy seetaan film bu mu yàgg mu kàbbar bàyyi télé bi noonu mbir yi di wéy mu cay bàyyi xelam wala mu bàyyi rajo bi muy wax mu bàyyi ci xelam tabarakàlla wala mu teg téléphone bi nga xam ne téléphone bu ñuy ŋàbb la ci wet gi wala sax montor yi ci loxo yi kàbbar na ci digg ba mu tàmbalee sonn di la wax ne waxtu sàngam jot na loolu sax montor yi ci jàkk yi léeg-léeg nga dugg ci biir fekk fa juróom-ñaari montor ci jàkk ji montor bu nekk tabarkalla di wax ni waxtu wi jot na yooyu yëpp suñu borom tabaraka wa taala boo gisee nit ñi di ko def moo di yooyu day dox seen digganteeg julli gi mat na mu war a mate kon nag fa farri qalbaka min ad-dunya wa ma fiha ba dama ci ayaamu saxaaba seen jàkk ya tapp yi sax amatoon sa jaada noonu defuñu ko woon perong te amoon nañu kat kàttan yi def fa yu mel noonu yi waaye suuf kese la woon boo ñëwee tiim ca suuf sa wala nga ñëw ak sa njàpp kàbbar noonee boo taflee ci jàkk ji mën koo soon soo sumee say daal tiim ko te it kenn du sàcc ci jàkk ji lenn te farri qalbaka min addunia wa ma fiha na nga fëgg sa xol bi ci adduna wa ma fiha ak lépp lu nekk ci adduna ndax rakk yi ngay def moo gën adduna ak lépp li nekk ci adduna dégg nga ñu ne rakaat al fajri xayrun min addunia wa ma fiha ñaar rakkay fajar ñoo gën li ci adduna lépp waaw ñoo gën li ci adduna ñoo gën adduna ak li ci biir adduna lépp waxuma laa nag ñeenti rakkay tisbaar wala ñaar rakkay suba yi nga xam ne mooy farat kon nag fa farri qalbaka na nga fugg sa xol bi min addunia ci adduna wa ma fiha ak lépp li nekk ci àdduna wastaxil nga soxlawoo bi muraqabati mawlaaka ci fuglu sa borom di nga fëgge sa xol ba noppi léegi nag da ngay fuglu sa borom ndax nga mën a chercher jël énergie ba doyal sëkk tabarkàlla fuglu sa mawlaaka sa borom sa borom man ah allasi sa borom bi nga xam ne tusalli li wajhihi jëmmam a tax ngay julli sa borom mi nga xam ne jëmmam moo tax ngay julli ndax képp koy kàbbar ku ne jëmm suñ borom tabaraka wa taala moo war a tax ngay julli moo tax ki xam ne yàllaa koy julliloo bu nekkee ci xew ba mu jot lu mu makkiyewu makkiyewu dana dana mën a sëlmu dem defi ko amaan su fekkee nag julli gi sa borom taxut léeg-léeg tabarakàlla toilette bi tax rek nga far sëggaale daal di bàyyi julli ga noonu te loolu ëpp na di def julli su nekk nii boo demoon ci benn liggéeyukaay boo xam ne bi dañ naan kenn du ko fi faat balaa kenn dugg ci biir jàpp tabarkàlla bala ngaa am weeru ren weeru déen ñëpp dañ dégg barab boobee jenn waaye joo xam ne ji mu ne ci bitim réew doon na ko def buy dugg ci liggéeyukaay bi day ñëw jàpp daal di dugg mu yàgg tubaab bi leen yore laaj ñu daal di koy wax tubaab bi ne léegi balaa kenn duggati fii da ngaa jàpp tabarkàlla te xamut sax luy loolu waaye defin wi rek mais allazi tusalli li wajhihi wa ataqib na nga gëm ne na nga gëm fas ci sa xol xam na salaata julli julli gu julli am na salaata daf cee def alif ak noon da koo sadda noon gi am na salaata mu def ci alif ak laam ci salaa ñaar yooyu ci jàngkati grammaire yi dafa am lu am sol lu ñuy def ci baat waaw ismu bii nga xam ne moo jiitu yooyu ismu am na nasab bi ñu ko nasab ak liif géeg laam géeg yooyu am na salaata julli ga tax ñu naan julli julli dëgg julli dëgg goo xam ne gii borom def na ko ca waxtu wa goo xam ne gii borom xam ne sarti julli boo xam ne gii borom matal na ko am na salaata julli gu dëgg waaw waxut rek as salaatu kese waxut am na salaatan déedéet am na salaata julli dëgg da nga xam ne xusuun ak toroxlu la xusuun ak toroxlu la moo tax da ngay sëgg jàpp ci say uum daal di siggi taxaw daal di sëggaat teg sa jëbu ci suuf day di si gi toog talal say baram day di si gàtteeg sa jëbu suuf ak sa bakkan si gi toog rek tabarkàlla xusuun toox lu ci sa kanam borom léeg-léeg ndeysaan nga seen ci football yi benn waay bu def dara arbitre dawul si ko mu daal di jàpp ñaar loxo ca ginnaawam daal di sëgg tabarkàlla karaatekaay yi dinaa gis ñu koy def am na salaata xusuun waaye nag wa tawaaduun lillahi nag lillahi ak oyof lillaahi ngir yàlla julli gi mu def ko oyof lillaahi ngir yàlla azza wa jal yàlla mi nga xam ne ku màgg la yàlla mi nga xam ne azza màgg na azza tedd na wa jàllate màgg na julli gi nag xusuun wa tawaaduun lillaahi bil xiyaam yi ci taxaw taxaw na rajju mel ni poto jàng foofu saar waxante fa ak sa borom ay baat xusuwa waaw làkk fa arab da nga ñëw daal ne yàlla allahu akbar yàlla gën a màgg lii ma nekkoon di ko def léegi te bàyyi ko ñëw ci julli gi julli gee gën a màgg lee ma nekkoon ndax yàllaa ko santaane yàllaa gën a màgg allahu akbar daal di tàmbali def benn ñaan ne yàlla maa ngi nii am audience ak yow maa ngi lay ñaan yàlla na nga soreel sama diggante ak samay bakkaar mittam koog sowu soree allahuma baacid bayni wa bayna xataayaaya kama baacadta bayna almashriq walmaghrib yow yàlla maa ngi lay ñaan yàlla na ma setal ci samay bakkaar ni nga xamee ni la ñuy setale yére yu tilim ci tilim tilim yow yàlla maa ngi lay ñaan yàlla na nga ma fóot ci samay bakkaar ci ndox ak galaas tabarkalla loolu nga xam ne moom lañ ci di ñaan làkk yooyu muy làkk ci arab bu ci noppee da daal di tàmbali jàng aw saar wu ñu wax alfatiha daan na yàlla maa ngi lay sant bu doon fajar tey nga ne yàlla maa ngi lay sant ndax bu ñi ma jógee di julli am na tey koo xam ne jógewu ko tey di julli ñi ma jóge di julli am na koo xam ne tey fanaan na ci leneen loo xam ne teel a koo julli kon nag alhamdulillah ñi ma jóge di julli am na koo xam ne tey moom la ruuxam fa mu tëdd kon nag man danaa wax mu nga tey alhamdulillah maa ngi lay sant ñi ma jóge di julli tey am na koo xam ne kii fam fanaan lan fa fanaane man teel a koo julli am na koo xam ne kii am na yum fanaane ba jëddanti man nga yeema waxtu wi kon nag alhamdulillah nga daal di sant yàlla ne ko yow yàlla rabbil alamin mbindeef yëpp yaa leen moom yërëm leen moo tax ñu dul julli doo leen rey tey yow rahmaani rahim ne su fekkoon yërëmoo leen ci jël engagement ne moom ab jullit la dina ànd ak yow ci lii ngay santaane bu waxtu wi jotee day jóg sangu wala mu jóg jàpp dem ci jullikaay ba julli fa kon nag yow mi mi yow mi borom bi def yërmande moo tax nga gis ko gàntu wala koy këpp këppal julli gi te it bu xëyee wuti dépense bu mu am te lii nga xam ne moom nga ko sant moom mu lànk te la ko soxnaam sant te mooy wuti dépense mu xëy wuti ko